Buuro fii la daan toog ba kër gi neex Japa Jees fii la daan toog di daan doole ah Baay Buuro si la doon toog di daan. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ana waa kër gi. ñu ngi fi. yéen a ngi si jàmm ah maman. waaw noo def. fii mooy kër Baye Goura. waaw. ah. waaw ana moom mi. Baye. waaw. waaw ñun ay élément dégg lañu woon. élément. direction des investigations criminelles. ëpp naa dama ñëwoon pour jox ko plainte war ko yóbbuwaale tamit. yóbbu kan. Baye Goura moom plainte Baye Goura. waaw ma ne. ah. ma jël kii. waaw lii mooy plainte. moom normalement dama ko war a yow. ëpp naa wax mbir mi dama rek ñu yàlla yonent bi. ah la ñuy def quand même. waaw a yóbbu ëpp naa def dikk xam am fi ay bañu rus. Mhm. na ñaaw am mais normalement dama a wax ji dama koy yóbbu. mais wax ko mu répondre dikk ci lu gën a gaaw suba nañ ko xaar sinon dinaa ko jël ci ak oto fii. ëpp naa xalaat dina ñëw day ñëw. c'est bon waaw c'est bon ok waxal ma ko loolu. naaj ci maa ngi jërëjëf doom ok. laa ay waay ay waay. ah yow da ngay jooye. ah. lu jóg ci man dootul ñëw. ko kii. complication. Ah. dikk. sama ngaamu rëy wee nag tax ñu bala fi waaye bone bi danoon dalay mën a fi yóbbu fi def nee suba suba suba suba ñu mën a gis la xalaas ay la hey hey hey ah du coowal leen leen ak banque ba dañ cee tuddee sama tur biñ ca tuddee sama tur man yëgoon naa bi ma jësi ngir man maa entendre entendre lan damay toog ñu laaj ma leen nga xam ma ne loolu dong la xanaa njaar nga defal ma damaa def xool. Adama. ana Adama. waaye yéen daa génn leen nag. comme foobar ngeen lu ngeen war leen soos taxawal yow. xalaat da ngaa yaakaar man damaa dof. man dofuma xam naa ñan ñooy dig mënumaa juddoo ci dëkk bii màgg ba day ni ma day musuma koo génn te lu ma am fi ko di ko pare di di lii fii Sénégal la xam naa lépp. waaw gis nga kayit li toll ni basang. ko ñu ko musaana jox boo demee doo dikkaat. lu tax loolu eh, yow da nga dul dellusi. te kii su ma ko ñaanal woon da lay mën a yóbbu mën a ta yóbbu nga doon dem laa ilaaha illallaah yow nag da ngaa xam xanaa xamoon ne situation bu nekk am na droit du ñu ñëw rek ma a ta yóbbu moom sax tey mënoon naa sax bu ma ñëwee jël si ma ne bala maa ñëw ma ma waxtaan ak sama avocat yéen da ngeen da ngeen di dégg ngeen di rek ngeen ngeen ngeen ngeen bi tos la xam nga la xew dañuy dem mu wuy kan kanay dem da dem wuy ji mu naan dañuy dem. yaa ah, xam dama dem wuy ji. wuy ji waaw dinaa wuy ji xaar ma sol sama daal sax ma laaj. te lu dama la dem buntu kër ga daal yaa ngi ci ga. ma waaye da ngay wuy ji. waaw taxawal. lu ko bul dem ah wuy ji. da wuy ji waaw. ca càccub xaalis nga sa digganteeg boos loo ca banque mag bi ngeen tojoon. oh toju ma ko de. kon ñu toj jox la bu salaat nañu bu ma dugal. waaw wuy ma kon ñu toj jox la nijaay. nee ma jàkk man la jàkk ñaari bët nga yor ma yor ko yaa ngi wuy ji dig dootoo dellu su may ma baat ah yow fase ah nijaay da fase nijaay dem naa jawbe jaay perte ñu dunde ko ci biir kër gi ma muñ ko nijaay teggi naa nattu jeeg gi jox la ko ngir nga jaay guro nga dem ba yëg sa bopp xeeb ko natt booba diig ma muñ ko nijaay layaan naa ci bedd mii ñu di ma fay fii ma indi ko ci kër gi ñu dunde ko lépp déeg ma muñ ko nijaay génne nañ ma ma ñëw sama rakk fat ma ci biir kër gii xëy a xëy bàyyi ma kër gi ma des su di demerde te xaw woon ne kër gi moomu ko damaa foofu daa far moo ko woon ne kër gi dañ koy luyee barki dee mboo njaay laa fay ñetti weer nijaay loolu ko fanweeri ki nu di nga des boo demee doo dellu si wallahi si sin di nga ma may sama baat man yoruma bool bi may ëmb 14 heures ba 16 heures di wër jëkkër ci kaso di ko ko jox man ca Baalla ji Baara Mbacke sëñ Fallou maam borom Touba danga ma sama baat. waaye yéen dégg ngeen ne may sama yaay baat ah waaw may ko baat ma nit nga mayaala ma sama baat parce que man ma dem prison sax su dee bu añ maanaam léegi boo mayee sama yaay baat nga mayam baat kenn mën na dem prison parce que duñ la sexe. fasel waay fasel waay defal naan defal naan defal naan dama toll ci situation bi ngeen may ñaan baat ma leen ko jox du ma leen may baat mais mën naa leen abal baat. kii ku am ba man fase fase yow nijaay may ma baat may ma baat merci maman may ma baat may ma sama baat ba foofu nga ci toll may ma baat papa may ko baat fase ma yow ba foofu nga ci toll wacc na ah. waaw rek ma fa leer papa may ko baat baat baat mu daal may ma baat waaw ah, dama ndànk rek ndànk ba baat xo xel nga koy mën a waxee te sama xol la jóg xol jógul ba xel xol bi bu géeful ba ba xel ñu mën bu ma lekkuloo sama mbañ may ma baat waaw léegi may naa la ko may sama man man tam may ma baat pap dikk eh yow dam rek bañ waaw chaque al ku dikk may ko baat dara a ko du wàññi maa ko bu juróom ñeenti rek bot ko ñetti at maay ndayam merci maman may naa la ko jeex na bàyyil bàyyi nena may na ko bàyyil bàyyi aada may na ko taxawal ni aada yaa ma taxawal njuga dem gañ a taxani bagaa sam sama doom lay àndal fu ma dem ànd ak ah, moom. baax na baax na. bàyyi bu perte bi. merci bàyyi bu ñàkk jom bi. merci maman bàyyi sàcc bi tappalekat bi. triant bi wayu bi wuub. Ah, mhm. xam. xam tardel nga ma. yàq nga sama der ma ni kon bi jaratuma fi dara. saa bi nga doon sàcc sama bu ma taxawaat. Ah. léegi daal defal naa defal naa ba ba nga yem la keneen waaye kenn ku nekk am nga ko mën a ànd. Jokalante. Eh, eh, Jokalante. mën naa ne. dégg nga dégg nga kër gi li ñuy wax. waaw léegi nag ñëwul gunge ma man. man mii nii. waaw man mel na mii. man damay dellu Joxoor. Eh? sama daal laa nga ne ma teg ak sama man Joxoor laay dellu seeti sama njaboot. juróom benn doom ak ñaari soxna xay xaaka da ngay da ngay da ngay damay dellu dëkk lu ko la xam mboote doomam bu bu tëgg demee la ko ëpp yay def hmm. day dem ma yow daal léegi kon lamal ñi moom lay mi même maye baat yow da ngaa jël baat. da ngaa jël baat. sama baat. Ah. ak sama tànk sama yel ak sama nopp ak sama. waay doon seen baat. di ko mottalee seen xalaat. sama baat doon seen baat. di ko mottalee seen xalaat. laay <laughs> laay la la lu waay ñàkk rek xarit baa ko amul. dëgg la. Ah. li li kii leen siis. maanaam sa dugg bii. Ah. dafa defar lu bari. ah alhamdulilah ah, man de mënu maa xatoo ah. léegi. li fi xew mooy. sama diggante bës lu mhm. fan yëpp maa ngi dox xamuñu sax li may dox. Mhm. dangay ñëw. ñëwu fi. damaa dem am lu ma wax ak commissaire gi bañ a kon léegi da ngay ñëw ñu toog ñu déglu la ngir ñu mën a am xam nga nee naa dama ko bëgg a dugalaat. convocation bi de la kan kan la ñuy déglu yow yaay dem commissaire mu déglu. waaw waaw dégg dégg léegi. léegi convocation baa ngi léegi nag eh, moo wax naa ko mu ne demut kii ne may ma sama baat doom ja ànd ci kii wax naa ko mun a day ñibbi léegi nag yow yaa nekkoon sama garde rouge mm-hmm. waaw dégg nga nan dem des bi ay nan dem guro seen baat ak sama baat bu nekk na téye sa baat lo- loolu lay la ah, war <laughs> déedéet dafa fekk ni jàmm yow mosoo maa gis ma sol lu baax comme ni mu ko doon waxee lew na nga seen laajam nii boo ma gisee ni ma soloon nii nga xam ne nii guro ndakaaru gii leen fi def dafa metti ndakaaru gii ñëw fii am fi ay dërëm yombatul samay mbokk laa jëm waaw yow ah. caba tàgguwaale naa la jooxoor mu nuyul ma waa jooxoor aada baal la ak loo ma mës a def guro yow baal la ak yàlla bu ñu yàlla atte ci dara lu ñaaw commissaire nag bu ma tuddee yàlla ñu yàlla atte ah, ah, papa sa café di tàng sab ceeb di niin doo xam sab noonu

lii lépp doon naa la ko wax a xamoon naa ne nijaay fa ngay jëm ak boos sa tas ñu dem ci biir àll. bonne chance papa bonne ñàkk jëm may wax nga naa lew na ñaaw si danga ma leen gën a xama gënoo leen maa xam fa jëm man ma dina bàyyi laa jëm te te te saraf bu ma demee ci saraf moom lépp dina rek lew waaw waaw ñoom am nañu ñaan tuuf dara te sax loolu da ko jar yéen daal dem leen laaxira yoo yaakaar tey yàllaay maye kër ga tas na guro fii la daan toog ba kër gi neex